salaamaaleykum dige bor la ñoo leen ko digoon fii ci Jollof Food TV gëj a gisee lañu leen waxoon newoon naa leen dinañ dugg ci goxkaan yépp dal di seet ñépp ñi nga xamante ni gëjoon ngeen leen gis namm ngeen leen waaye bëgg ngeen xam ci lu ñu nekk tey nag dañoo tànn kenn ci ñoom ñooñu tey dañoo dugg biir Faramareen jël fa kenn ki nga xamante ni namoon ngeen leen ku fi woyoon euh, droit de l'homme ki fi woyoon yóbbal ki fi woyoon waxambaane waaye ki fi woyoon médecin yi ñu koy woowee usman Seck du def lu dul bàyyi leen rek yéen euh, ami internet yu Jolofwood TV ngeen nuyoon teeg Ousmane Seck ñu daldi di nammantikook moom usman nuyu nañ la Maya maa ngi leen di fay mhm. mbaa yaa ngi si jàmm waaw ñu ngi sant yàlla gëj a gise waaw gëj nañoo gise gëj nañoo gisee de waaw waaye gisee nañu tey. waaw gisee nañu waaye war ngaa nuyu ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan tamit nuyoo nuyoo la ak ñoom. waaw asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salaahu salaam. Mhm. di gërëm suñu waajur yi di uh, sant kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp. Eh, di jiital ci cant gi nag Cheikh uh, Mountakha uh, di nuyuwaale sama sëriñ Cheikh Bass Abdou Khadar. Mhm.

kañ la Ousmane paré rek ne tay ji damay woy ndax ku ne xam na ne woy mom dang ko donno euh, bi ma juddo rek mhm. xam naa parce que comme wax nga wax bi mhm. parce que bu fekkee ni mm, mbir dang ko am ci sa deret mhm. euh, pour nga mucc ci nak day xawa a xana mu nekk lo xam ne rek yalla euh, sédé wala ko sa bat neexul wala taxul nga sop ko lool bon loolu xanaa nga nga am leen ku nekk ak sa destin quoi. waaw. xam naa dafa bokk ci suñu destin parce que tànn ñu pour nekk ay faramaareen wala ay waykat wala lu mën a doon wala ñu nekk géwël mm-hmm. mm-hmm. mais yàlla moo ko def yàlla moo ko def ñu ci mm-hmm. waaw dëgg yàlla buñ ñu xamee moo tax ok voilà mais mbaa xam nga ne sa fans yi nañ la trop gëj nañ laa gis man mii maa leen gën a namm nag waaw lu waral gëj a gisee bi non xam nga musique day am moment yo xamni ni. Uh-huh. Eh, da ngay day nek moment de promotion pour bëgg ko la xam. Uh-huh. wala nga am lo bëgg ñëpp yëg ko nga nek ci média yi. Uh-huh. wala nga am télévision bu nek à ta portée. wala radio wala journal. wala eh, lu mëna mën a doon rek loo xam ni eh, c'est médiatique. donc lool tout le temps mën nañ lay dégg. mais bu fekkee dem nga ba nga xam ni pratiquement li ngay ëpp ci li ngay def ay soirée euh, centre lay nekk ay oh. soirée comme ay club mel ni Madison Gaynde mhm. euh, Escale comme fi may tëgg tous les dimanches aussi à Rufisque euh, yooyu la ëpp ci lu may yëngu bu ma demul tournée boo demul tournée voilà wala ñu def comme ay anniversaire sa anniversaire mhm. bon c'est presque par deux ans lay nekk mhm. par trois ans pratiquement mais euh, dama remarqué wala dañu remarqué sax né Ousmane Seck euh, bu njëkk ba ak public bu njëkk bi la topone ak légui dafa melni dafa xawa am dañoo dañu xaw a baissé cadence yi c'est normal parce ah. que euh, pratiquement boy xol public bi lay top topp uh-huh. ñoom aussi dañuy nekk sa génération uh-huh. bon dinañu ñi mag ñoo xam nekkatuñ ci dëkk bi wala ñii génnatuñu wala ñiy mach euh, mardi taali dundatuñu wala ñiy feebar nañu. wala uh-huh. bon donc day am beneen beneen public bu bees boo xam ne ñoom ñooy topp ay Waly Seck. Uh-huh. ay Mandiaye Seck Bambaali uh-huh. nga ay Sidi Diop ay Tarba Mbaye xale yi macha allah ay Momo Dieng. donc ñooñu sax dina dina am public boo xam ñoom tamit lay suivre. mais seen yëngu yëngu yi foofu lay gën a. yëngoo parce dañuy nekk ay xale nag. waaw loolu dëgg la mais tamit booy gis Ousmane Seck bokk ci famille Faramareen famille woykat ku nekk xam ne ne Ousmane Seck mën naa woy am na talent bi mais pour man publique boobu bu ñu demee ba comme ni nga wax euh, ne ñi màgg nañu ñi sëyi nañu mais am na ñeneen ñu bees ñu ñëwaat. ñooñu ñu ngi fi. ñu bees ñi moom macha allah. mais dañoo remarqué ne affaire yi mel ni comme bu njëkk ba. bon dama gëj a génnee. Mhm. lu bees. waaw loolu dinañ ci ñëw. ci kanam waaw loolu loolu xam nga boo génnee lu bees rek. Mhm. ñëpp ñëwaat. léegi damay ñëw ci <laughs> loolu li tax gëj a génnee lu bees loolu. te nga mhm. xam ne am nga am nga fan si macha allah am na ñu la bëgg ñi nga xam ne dañuy déglu sa ay woy. ok lu tax ngay nangu di toog di gëj a génnee lu bees. non xam nga parfois tu n'as pas le choix xam nga lu tax. Mhm. Euh, man nekkuma ci label. te même bu ma nekkee ci label piraterie wàññi na lu bari. waaw. parce que studio boo xoolee chaque jour bu nga génne produit da ngay def def studio bu baax. bu mhm. am son. Mhm. studio bi minimum tu pay cent mille par jour. cent mille par jour fayaguloo musicien. Mhm. dafa guloo li nga xam ni euh, fayoo technicien. yooyu yëpp dafa guloo ko te xamoo ñaata jour ngay def studio. te boo génnee pirate baa ngi lay xaar. donc. du yomb nag wax dëgg yàlla ngay jël ay millions di ko di ko di ko dugal noonu ci loo xam ne dañ koy pirater rek. ci loo xam ne gañewoo si dara ay millions. waaw ay millions lay doon. Ah. bon léegi te boo ko génnee it te nekkul qualité boo xam ni bu ñu mën a consommer lu yàgg la. Mhm. trois mois lañ koy consommer quatre mois laajaat la leneen. laajaat te wax dëgg yàlla nag suñu place yàlla jox nañu ko ba pare. Mm. amatuñ nag lu ñuy daw bay daanu li ñuy maintien la ñuy def. maintien ak def fulla nag ak fayda. Mm-hmm. waaye utatuñu ku ñu xam. su ma déggee bu baax daal dépense yi bari na bari goo xamante ni di di tegle album yi daal day. xaw a métti ci yow mënatul nekk mais. dañoo gis ne seen doom yi géné nouvelle génération bi ñoom chaque deux ans ñu génnee album. dañoo bëgg lan dañuy place c'est normal. <laughs> dañoo bëgg buzz moo tax ñuy génnee album. chaque pas, deux pas, ans pas bëgg buzz. Mhm. maanaam dañuy dañu bëgg a positionné wu. dañoo bëgg a positionné waaw mooy buzz bi rek. waaw waaw buzz xam nga buzz mooy musique ñoo ànd. waaw mais bo boo bëggee positionné wu. Mhm. Euh, da ngay le maximum ci ay fans. Mhm. nga xam ne ñoo lay soutenir. parce que dole artiste aussi public la. dole artiste public la. wa donc wa donc loolu boko ko bis bu kan eh, nek sax di nga def ma nga wax ma nga génnee luñ lay tuddé waaw loolu deug la c'est normal. mais gis nañ ne tamit ci sen famille bi ngeen nek presque ñu upp ci sen doom yi. non non non même ñu upp ci sen kenn xamul len parce que. c'est une grande famille kon da ngeen na bari di. ah, ah. ah non c'est une grande famille. ouais d'accord ah. légui kon gis nañ ni sen taw yi boobu ñu ngi wëy. wala pataaw yi non non anu yi tamit am nañu teug kon bàyyi ma limal la. lima kon ma ni la kon Mandiaye sekk Waly sekk ak Bambaali ci ñu ci xam. ci ñu génn gum ñu ngi wéy di wéyandoo ak seen papa yi léegi yow da nga pare pour toog bàyyi Mandiaye mu dem wala da di wéyandoo ak ñoom. xam nga musique. Mhm. moom mooy euh, mbir moo xam ni. Mhm. amul âge de retraite. Mhm. amul aussi da ngay bàyyi ki mu dem wala kee toog non. kon su ma déggee daal da ngeen pare wéyandoo papa ak doom. waaw mais ñu ngi wéyandoo. waaw soo gisee ma laaj la loolu parce que dañ laa gëj a gis nga yë dañ laa gëj a dégg nga yëngatu alors que Mandiaye moom instant bi mu ngi def feu flamme. lu la romb xel ya neex ba mu jógee dafa yàggul. Ya dëgg la. waaw parce que Mandiaye dañ koy door a xam. Me ber nga ko léegi wala ber goo ko oh, Man jay mi ngeeg orchestre mi ngeeg eh, orchestre kon léegi ber nga ko mi ngeeg orchestre waaw bo dege ma laaj loolu parce que ciow li bëri won na fi man jay papam ber na berwul ba mu ñëwaat normal c'est normal parce que mhm. bon xam nga boy dañuy yakamti. Mhm. et si ñi leen wër tamit duñ leen bayyi ci mhm. Ma duñ bayyi wër ci ben fan parce que ama dañ ñi doomi mbeur jangil béré. Yag yag des na la ñam ku mu doon ci ñun suñu doom tam dañuy bëgg. Oh. bon bis boo demee bay beru tam dañuy dem ba mu leer nañu pare nga. Oh. waaw léegi yow est-ce que leer na la ne yow boo tëddee yàgg sa waxtaan ak sa ngegenaay leer na la ne Mandiaye comme instant bi nii pare na pour beru. waaw fi bon dina ko dese tuuti. dina ko dese tuuti mais comme mi ngi koy ñafeel boppam. Oh. te gis naa ne mi ngi ciy génn. ah alhamdulilah man benn poids bu wàcc ci man la terewul. terewul. bu demee ba am lu mu bëgg wala lu ko jaaxal. Mhm. moom xam na fi muy ñëw. xam na fi muy ñëw. comme ni ñuy wax naan boo demee ba xamatoo foo jëm. da ngay dellu fa nga jógee da ngay <laughs> kon nag mi ngi noonu <laughs> boo xa demee ba xamatoo fi nga jëm. nga daal di delluwaat rek fi nga jógee ci faramaareen Mandiaye Seck doomu Ousmane Seck mais Ousmane bëggoon naa la laaj tamit euh, Mandiaye mi ngi woy Bambaali mu ngi woy Waali mi ngi woy ñooñu euh, dama leen di tegee de côté ci woykat ci nouvelle génération bi. mais instant bii nii ak yeneen xale yi nga xamante ni ñoom tamit ñoo ngi bousculer ci seen musicale bi boo ci doon euh, tànn ki nga xamante ni mën naa woy kan lay doon à part famille Faramaren oh. xam nga yow sa question bi dafa da ma bëgg dugal parce que non <laughs> <laughs> que uh-huh. bon man bu ma toogee fii di wax ay diw mën na way wala diw mënta way te ñun ñi nga xam ne sax ñun seeni mag ak seeni nijaay ak seeni papa. Mhm. dañuy jàng ba léegi. loolu dëgg la mais ku nekk xam na ne yow mën ngaa woy coon mën naa woy jàng. yaa ngi jàng waaw waykat baa ngi noonu coon. coon loolu kenn weerantewu ko. Ah. mais à part famille Faramareen parce que nee nañu olof Ndiaye nee na kuy wàññi xeet boolewuñ ci ndey ak baay. donc moo tax ma jël famille Faramareen tegal leen ah. de côté. Ah. bëgg rek nga waxal ma ci yeneen xale yu bees yi. kan moo ci dàq way déet ku ci dàq way moom Ndiaga Mbaye nee na. léegi léegi waxal ma kii nii xam nga ne moom kii nii moom day dem wala kii ak kii. ñii xam dem yàlla ko xam de <laughs> man xaw ci dara xam nga nag aussi. Uh-huh. affaire bi dafa chance daf ci bokk. Mm-hmm. te xale yi musique dafa yaatu. bés bu nekk rek mën ngaa jàng. Mm-hmm. àdduna sax. loo xam ne xamoo ko woon démb wala mënoo ko woon. Mm-hmm. te boy yi comme bëgg nañ li may digal rek di ko digal sama bopp mooy nañu nangoo jàng. nañu loo bëggee doon sëriñam. Mhm. da ngay doon taalibe. léegi daal da nga bëgg daal fexe ba génn ci question bi. non non génnuma ci ba léegi de. Mhm. ba léegi maa ngi ci question bi yow bëggee. ma wax man la kii mën naa way kii mënta way loolu du ma ko wax. waaw léegi xam nga looy wax <laughs> léegi kan nga ciy déglu kon. oh dinaa leen déglu parce que ku mel ni Boy Momo Dieng. Boy Momo Dieng. dinaa koy déglu. kon moom la man bokk na ci waaw ah, bokk na boy Sidi job aha dina koy deglu euh Tarba mbay Mbaye dina koy deglu déglu euh amna ay bon bëgguma lim sax di jum juum mais daf ci am boy yo xam tamit wax deug yalla dañ ma dañ ma jox cër tamit wa est ce que du cër bi tamit mo non non non mm. amna ñeneen ñuma jox cër te leer na ma ni ñii mm. dese na leen lu bari ah. mais da nga leen koy wax parce que peut-être ancienne gloire bu ñëwee di wax ak mbër mu ndaw uh-huh. ay conseil la koy jox uh-huh. te conseil daf koy leer ni expérience bi mooy wax donc bokkul ak koo xam ne xamul dara ci li muy wax ñëw di wax man tey gi su ma ñëwee ñëw di wax ak koo xam ni dafa nekk ci yoon mu leer ma ni kii bu góorgóorloo da mën naa dem uh-huh. su may wax ak moom xasuma ko ko Uh-huh. mais dama koy digal. dama koy digal ndaxtaan ko daal ba. waxaale ko sa soxla non wax waaw soxla bi du sama soxla moom soxla am la. ok parce que dama koy dimbali parce que ñun ñii. Uh-huh. noonu lañ ñu daan def. man way naa ba taay foog na maa rey gaynde gi coon ñoo ñu man neexul ba neexul waaye aayagoo. ok léegi nan la la daan def loolu. yokk jom ma xam ni. Uh-huh. <laughs> damay door a tàmbali. c'est normal. mais léegi soo woyee dina ne dina ne baax na. Ah, loolu moom yàgg na loolu moom kenn werante moom kenn waxatu ko moom macha allah wax dëgg yàlla. macha allah léegi euh, Ousmane Seck nga dooree ci morceau bi nga xamante ni mooy droit de l'homme mu nekk morceau bu marqué Sénégal waaye am na beneen morceau bi nga xamante nii tamit ak fi réew mi toll nii ak euh, euh, mbirum wérgu yaram gi ni mu ni mu suuxee. instant bi docteur ngay wax docteur laay wax xam nga fi ma jëm. Mm. waa est que doo ñu ci ñamal tuuti balaa ñuy jàll. bu ma sañoon. Mm-hmm. baa ma am dogaloo bu ma sañoon baa médecin lay doon. médecin lay doon. Ah? instant bii nii boo doonoon médecin di nga bëri liggéey mm, torop. torop ma dugg ci corona bi rek dugg ci bu ma corona yi ñu quarantaine ma <laughs> bu ma wéree delluwaat. delluwaat ci micro bi parce que dafa nekk loo xam ne dama ko bëggoon nag. Mm-hmm. nekk docteur. Mm-hmm. xam nga parce que xam-xam bi yàlla jox docteur. Mhm. bon boo nee médecine wax euh, kii opéré. kay mhm. xam nga ki nga xam daal ku mën a doon da nga xam ni mën na diagnostiquer nit. Mhm. xam li ko dal li koy faj. mën a opéré nit. loolu xam-xam la boo xam ni. dafa doy waar. dafa yéeme loolu. nga xam nit.

kon ki yàlla may tey ji boo wéradee nga dem moom ngay seeti mbaa ñu gàddu la yóbbu ci moom oh. mu nekk ci yow ba yàlla fekk ko ca nga wér oh. ah non loolu secret yàlla ngi foofu mi ngi noonu kon kon daal li ñuy wax naan su ma mënoon delluwaat ginnaaw yow soo delluwaatoon xale moom laay doon médecin ngay doon kon léegi lan ngay wax ci corona bi nan nga ko gisee instant bi ak dëkk bi ni mu ni mu mel nii ni mu rëbee ah, ban message ngay jox ñi nga xamante ni ñooy population bi ñu ak euh, ñi nga xam ne ñooy médecins yi waaye ak tamit ñi nga xam ne ñooy euh, gouvernement bi euh, fi may njëkk mooy encourager ñi nga xam ni koo xam yaa ngi ci médical rek mm-hmm. di sonn ngir xeex ak feebar bi mm-hmm. ma lay jaajëfal di la massawu di la encourager te di la xam ni jihaat ci jihaat nga nekk mm-hmm. parce que feebar boo xam ni duñu feebaru africain la wala européen wala asiatique wala fu mu mën a doon c'est mondial c'est mondial mu jaaxal ñëpp arrêté lépp nag jaaxal ñëpp arrêté lépp ba tax ñun ñi kenn mbalaxatul kenn ngaangatul mm-hmm. kenn lekkatul ceeb bu niin sax ah waaye milliards yi génn na tamit ana milliards yi man ah moom laa la ñëw laaj si nii ah doom man de boo gisee fuñ koy eh wuy ma dégg naa ne artiste yi ceebal nañ leen oh, dégg naa jox nañu un milliard dégg nga kon gisagoo non gisagoo parce que ah non joxe ko xëy na dañuy xool nuñ koy nuñ koy ah. paacoo nag da ngeen xool nu ngeen koy paacoo waaw ñun fekke wuñ fi ñu koy xool nu ñu koy paacalee ñun pour ñun pour mu yegsi si yéen mais yéen daal gisagoo leen non dañoo dégg mais gisaguñ da ngeen dégg rek d'accord léegi mën nañ xam fu projet yi tollu projet yi mënumaa wax lépp ndax cat dafa gaaw waaw ah, cat dafa gaaw mais mën nga ñu cee ñamal tuuti quand même. li may ñamale rek mooy. ah say fans. fans yi. Uh-huh. maa ngi studio nag. yaa ngi studio. waaw nii may kon am na album bay préparé. ah bien sûr parce que nag bon dama doon pousse sama doom ma Mandiaye Seck nag. Uh-huh. parce que xëy na peut-être moment boobu doo mën a nekk ak moom. ci uh-huh. marché bi. Uh-huh. bon te comme sama doom la. ah am na loo xam ne nag yàlla dafa dogal bu ma ko defalul kenn du ko defal. dëgg la. ma arrière tuuti nag. Uh-huh. di ko bëmax. pour bëmax ko instant bi moom jàll na moom. ah waaw alhamdulilah léegi nga na bëgg a toppaat ci euh, kaw. waaw parce que moom. am na am na am na yeneen frère am yoo xam tam dañu bëgg a def musique kenn xamagu leen. ah ok ñoom ñu ngi ci orchestre Ouz Band actuellement ñu ngi jouer instrument ñu ngi wayantu. ñi ngi wayantu uh-huh, léegi cat lay bañ. cat ngay bañ moo tax nag moom. <laughs> ak gaaw te sew. dafa sew te gaaw. puus nga ma Ndiaye ba mu ba mu jàll. jéggi na moom non jàllagul. moom daal dina jéggi def ñaan jàll. non jàll na sax jàll na quand même ñu koy bàyyi xel. jàll na quand même. ñu ngi koy bàyyi xel ah ma Ndiaye instant bi mi ngi mu ngi dóor de. ah dóoragul de. ah loolu nga gis. faramaareen la nag. faramaareen la mais sànq wax naa la jël euh, faramaareen yi tegee leen de côté mais damay duggaat si ñoom. léegi yow euh, comme que yeneen xale yi wax nga ñi nga ciy déglu ñi nga ci yaakaar. léegi ñenn dama tudd ñenn ci ñi. ñenn ñenn ñenn waa ñenn ci. am na ñu ma li limul pour bañ euh, ñeneen ñi mer daal. non xam nga nag. mer mm. moom. Mm. ku bañ ñëpp mer. Mm-hmm. xam nga loolu mënta nekk. yàlla mi bind jaam yi sax. Mm-hmm. ñëpp kontaanuñ ci moom. te moo bind ñëpp. loolu dëgg la ma leen rey. Uh-huh. xel. parfois boo gisee nit di bañ a lim boo limee da ngay juum te boo juumee am na ñoo xam bu ñu amul compréhension mën nañu mer mais ñooñ mënoo si ñoom dara actuellement ñetti faramaaren yi nga xamante ni ñoom instant bi ñu ngi sur la scène musicale sénégalaise ñoom ñett kan moo ci dàq way waxuma ñi ñëwagul nag waxuma ñi jàng way ñoom ñett ku ci dàq way mm. xanaa seen mag waali seen mag waali waaw moo leen dàq way ah waaw parce que ñun ñun bi bi bi bi nga xam ne ñoom kenn ñoom kenn xamagu leen mm. ñun ñëpp dañoo courbé woon derrière Thione Seck. Mhm. def ko muy suñu sëriñ. Mhm. xëccoowuñu moom. Mhm. jaay diirantewuñu ak moom mbagg. yàlla jiital na ko ñu topp ci ginnaaw. ñoom it waali mooy seen coon ñoom amul kii dàq xaway waali non waale leen dàq xaway mooy seen maître ñoom ñëpp nañ jaar ci ginnaaw sax. Euh, waali daal moo leen dàq kon baax na léegi noo gisee actualité euh, musicale bi. actualité musicale gis naa ni euh, ça bouge. Hmm. mooy li ma la wax sànq rek parce que musique fi mu nekk nii mën naa mën naa mën naa teral ku ne. Hmm. xam nga musique ak làmb. Hmm. ak yooyu maanaam lépp lu jëm ci wàllu fo. comme ni ko gars yi di waxee. bon dafa nekk loo xam ne culture nga ko mën tuddee. te culture dafa bokk ci. li mën a développer dëkk uh-huh. moo tax bu fekkee da yàlla dafa la xiir ci nga war a def culture uh-huh. moo xam da ngay bëree da ngay way da ngay wala sport bi uh-huh. lu mu laaj loolu nga koy jox dëgg la amee dégg ñi ma ko gisee mooy boy bëgg nañu ñu bëri war nañ leen xam ñi ngi ñi ngi ñi ngi def tuuna pour pour feeñ mais feeñ dafa lu mu war a àndal mooy talent talent wóor Oh. parce que bu fekkee ni da nga bëgg a feeñ. mën nañ la bëmaax ba nga feeñ. Oh. ñëpp xam la. Oh. mais bés dana ñëw nga xam ni talent rek mu wóor. dëgg la. te talent. Mm-hmm. dafa baax ci lépp. dafa baax ci lépp. waaw dëgg la waaw donc nañ jàng. nañ nangoo nekk ay taalibe. Mm-hmm. nañ jaar fi bañ a yàkkamti. la musique n'a pas gis nga boobu buggee def carrière. Mm-hmm. dis-toi que ni c'est toute une vie. carrière fekk yaa ngi mën. di bëgg. ànd ak dogalu yàlla rek mën nga ko mën nga def. kon daal su ma la déggee yow kon pareegoo sax pour teg micro bi instant bi da nga bëgg ma teg micro bi non non damay laajte. non non yow da nga bëgg ma teg micro bi non damay laajte. wax nga loolu Thione Seck wax nga ko Youssou Ndour wax nga ko Mapenda. Ah. wax nga ko Assane Ndiaye. non damay laajte. ñoom ñëpp. xam nga Youssou Ndour doomam wëyul. te yéen seen doom a ngi wëy loolu moo tax. ma laaj la loolu. mais c'est une c'est une fierté. Ah mm. nga nekk ci dara ba sa doom fekk la ci. Mm. ah non neex na. ah non dama yaakaaroon ne rek boo nekkee si dara ba sa doom màgg nekk ci da ngay dem toog bàyyee ko mu doxal. mais loolu laa yaakaaroon mais xanaa bu dul dara sax war ngaa mën a gunge sa doom nag. waaw war nga koo mën a gunge. war nga koo gunge ba mu gën a ñeme nag. Mm. ba ñeme. ba xam mm-hmm. bu boobaa nag sama nof laay lay doon damay toog rek yor sama piliard nag. d' accord naan ko waaw. Nah, damay encaissé di consommer waaw <laughs> dëgg la noonu lay demee fii ci Jolofwood TV. Mm. newoon naa leen gëj a gisee lay doon te képp ki ngeen gëj a gis rek dinañ ko xëcc indi leen ko fii Ousmane Seck léegi euh, li ma lay laaj mooy sa sa relation ak say frère Thione Seck ma Mapenda Seck Assane Ndiaye lan mooy seen seen seen diggante lan mooy seen relation yéen très bonne relation mmh. parce que li ñu bokk moo ëpp doole yi yëpp mhm. Thione Seck ñoo bokk ndey ak baay mhm. Mapenda Seck ñoo bokk ndey ak baay Keba Seck ñoo bokk ndey ak baay Assane Ndiaye ñoo bokk ndey te sax booy xool dañ naan sax ñoo bokk ndey ak baay ndax mhm. moom yaayam ak suñu yaay ñoo bokk benn yaay muy Ruba Joom ba pare Ruba Joom moo yar rak rakkam yi jur Assane moo moo yarkam moo jur Assane njaay mu yaay Nogoy Dieng mhm. moom yaay Nogoy Ngom yi ñu jur moo ko yar ba pare Assane si boppam yaay Nogoy ko yar coon it yaral ko boppam coon it yaral ko boppam. waaw ba moom gis nga comme day way comme coon. Mhm. day xam nga boo ko xool da ngay xam ni kii coon rek la bëgg. Mhm. coon rek la xam. donc relation bi ñu am ak coon moom la am ñun ñëpp suñu biir. gaañee fi nekkoon rek dugg mhm. fii génn fii dugal kii mais loolu mënul ñàkk mais alhamdulilah comme ni ko papa Thion waxee di fuural rek muy fuur waaw loolu Sénégal la moom boo diggante jëkkër ak jabar diggante ay xarit. Oh. diggante mag ak rak. fépp lañuy ñuy dugg moom boo amul fula. Oh. relation boo am dinañ ko yëngal. Oh. waaye na comme ñun ñëpp ay sénégalais la xam nañ li xew Sénégal. Uh-huh. kenn ku nekk xam ni. daal léegi am ngeen seen fulla goo xamante ni ah, kenn dootul dugg ci seen biir daal. man day duma ko may kenn. doo ko may kenn te xam naa ne ñoom it duñ ko mayati kenn. ah non ay coono rek la. parce que ay mbokk. Uh-huh. ay mbokk yàlla nee na. Uh-huh. képp kuy jokk bokk. moom dina jokk sa diggante ak moom oh. kuy dog mbokkit oh. moom safaan la oh. te nag yàlla musal nag ki yàlla dog sa diggante ak moom te mbokk dafa foor dafa foor mbokk dafa rëy sax mbokk dafa neex ah mbokk neex na uh-huh. foor na uh-huh. foor na voilà kon nag mi ngi noonu nee na mbokk neex na foor na ah. lan ngay wax say fans xanaa di kontaan ci euh, je a gisee ma de, a ak sama yenn fans yi uh-huh. mën a ak ñoom uh-huh. di leen di di a wax euh, bonne année 2020 bien que année bi ànd naa corona mais nag uh-huh. année bi jeexagul te toujours tubaab après la la pluie c'est le beau temps c'est le beau temps yàlla ni yàlla defal nag bu léegi lii dafay jeex léegi ah. bu jeexee